asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi taamu warha TV bienvenue ci seen beneen numéro de l'autre côté du canapé chaque jour ma ci am mbégte di ci ànd ak Cheikh Ahmadou Faye Bamba nuy naa la. waaw soxna Warkha maa ngi lay fay di la ziar. bu baax mhm. vraiment di am mbégte di ñëwaat fii tam ci émission boobu importance bi de l'autre côté du canapé focus sur les droits en santé sexuelle et reproductive. effectivement bi du suñu cinquième émission boobu ak légui ñuy and ak internautes yi ñuy suivre di ñu jox aussi seen i retour ñukoy koy rafetlu lool ndax li waral yi la jotay moy rek di gën waxtané ci si lu ñu ni santé sexuelle et reproductive parce que xamnañ ni ci suñu société ak ni mu tëddoo mm-hmm. liñ koy wax liñ koy waxtané bari wu. donc comment créer des espaces yu ñuy permettre seen préoccupation ñukoy waxtané fi sans tabou moo tax a bi la émission tay nak mm-hmm. ñuy waxtaan waxtaanee sujet bu nga xam ni ñun ñëpp la yitel muy la culture du viol la culture du viol nak bu ngeen ko déggee viol muy ci biir mm-hmm. mais itam bu ñuy wax viol amna mo moo bu dul génn mais bu ñëpp di xalaat muy le consentement kon tay man ak monsieur fay dinañ waxtaan ci parti yooyu wax ci ko gisee wax ci liñ ci xam mais également dinañ ànd ak suñu experte aussi mu jox ñu point de vue Nous, monsieur Faye ñuy parfois culture du viol comme un ensemble de comportements qui font en sorte qu'on banalise et même qu'on excuse les agressions sexuelles on ramène la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime et on remet en question la parole de la femme on utilise le corps des femmes comme s'ils étaient euh, comme s'ils étaient là pour assouvir les besoins des hommes manam dal culture du viol boko ko moy comportement gis-gis appréciation yi nga xam souvent bu le nit ki ne dañ koy sakku lolou ngay tek ci kawam pour baña gëm limu wax yoy nak en général monsieur fay ci suñu société bi lan nga japp ni moo koy waral. voilà foofu nga xam moom question le bu am solo. Hmm. tay jii tamit suñu société dafa am gisin bu mu am ci ñuy hmm waaye gisin boobu li ko indi ñu ci ëpp dafa mel ni dañoo desee xam lan la tuddee viol. effectivement voilà viol dañuy wax ne c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit. Mm-hmm. commis sur la personne d'autrui. Mm-hmm. par violence par menace par contrainte ou par surprise. maanaam loolu mooy euh, siq ak nit yegg ci kawam wala nga sàkk ko ci loo xam ne du coobareem. Mm-hmm. mën naa doon loo xam ne da nga koo menacé ba yegg ci kaw mun naa am loo xam ne danga koo teg ay jafe-jafe ay métit ba yegg ci kaw mun mhm. naa am loo xam ne danga nga koo bett. Mhm. dégg ba yegg ci kawam wala sax nga gaañ ko affaiblir ko ba yegg ci kaw loolu lépp day doon day doon viol. Mhm. waaye acte yooyu nag buñ koy bu amee mooy te jii ci loo xam ne kooku nangu ko. voilà léegi nag.

et coupable en même temps effectivement. yaa ngi quand mhm. kon loolu day indi ay jafé jafé yu bari bari. effectivement looloo tax nak suñu société ñun bu viol amé mhm. au lieu ñuy xol manam fam mu dañ koy jelloo ca kamu dal. effectivement Té kooku mu dal numa ko waxé sank victime la. Mhm. kooku mu dal mom mënul nek en même temps ki nga xam ne moo waral loolu. ndax tamit tudd nañ fi droit yi en matière de santé sexuelle. effectivement. il y a le droit à la sécurité. -hmm. et à l'intégrité. surtout sur le plan corporel. effectivement. kon nit ki. Mhm. kenn warul yegg ci kawam. Mhm. kenn waru koo métital kenn waru koo teg ay jafe-jafe ci lu dul ay ay coobare. Mhm parce que ki parce que nit ki bu ñëwee ba mu wax la saako naa dañ ma saako. xam nga en général survivant de viol yi ñi nga xam ne dañu nekk dañ leen di saako te du doon lu leen neex. souvent dañuy jànkonteel difficulté yu bëri. parce que dañoo nekk ci société bu nga xam ni. Mm-hmm. souvent boo nee viol rek mooy crime bu nga xam crime la wax. parce que tey dañ ko criminaliser fii ci Sénégal. mooy crime bu nga xam ne bu ko xasee ba commettre souvent. Mm-hmm. ñu ngi interroger toujours victime bi. amul beneen crime boo xam ni nii amé amee dinañ interroger protéger victime bi. parce que souvent day bu dee crime nooy rey nga nit ki day mel ni nit ki dee na donc victime bi bu deewee moom te dañ ko rey. xam nga doo ko dem di koy interroger même si parfois. Mhm. dinañuy seetlu ni si yenn libid yi day am ay crime parfait ak crime yoo xam ne nii. Mhm. du ay crime yoo xam ne crime yu ñu mën a yu ñu mën a wax parfait entre guillemets la. Mhm. donc le viol bokk na si les rares crimes yi nga xam ne bu ko nit commettre souvent. dañuy laaj lan mooy responsabilité ku jigéen kii lan nga fa defoon lan la lii lan nga soloon loo ko wax loo ko kii et puis ci ginnaaw loolu noonu yëpp avant culture du viol bi dañuy euh, négliger wala dañuy dañuy dàq lu wala dafa mel dal ñu dañu nekk ci société bu nga xam xamuñu lan moy le consentement donc c'est un thème c'est un nom qui mm. ne vient pas souvent luñ dul dégg souvent mais am solo la mm. motax tay voilà ci suñu waxtaan wi wala ñuy sori dinañ ci taxaw le consentement d'abord bu ñu koy wax monsieur Faye on doit penser à quoi voilà kon noonu nga ko waxee euh, ku wax viol mm-hmm. wax nga koo xam ne mm-hmm.

am kum tiim ne ko jox ma sa saako wala ma jam la ok kooku ne ko waaw nee na ko waaw. mais est-ce que kooku nangu na ñu jël ñu jël ay bagages am peut-être dafa ragal ñu jam ko. moo tax mu ne waaw. Mhm. donc tey jii si viol loolu daf ciy am. ñu gis koo xam ne dañ koo menacé. Mhm. sànq bi may définir viol wax naa menace. ñu teg la ci contrainte ba nga sax wax waaw amaana.

L'effet fekk amul sa suné ne bu des nit mën na euh, euh, viol koy dañ qui ne dit rien consent. relativiser la. effectivement dans le cadre du viol. nit ki mën na baña wax par peur wala euh, par contrainte. Mm-hmm. waxul waxul mais mën naa am li ñu koy def neexu ko. Mhm. bu boobaa ki yegg ci kawam moom mën naa ne. mën na koo layoo def ko lay ne nangu. Mhm. kon en gros consentement lu am solo surtout bi nga xam ne nag nañu ne dafa ci li le consentement éclair. Mhm. nga xam ne même dans le cas des soins ne na pas paj yoo xam ne bala nga defal nit ki da koy nangu ba nangu Mhm. tey jii euh, victime de viol prise en charge Il y aura un examen clinique bala ngay ñëw yegg ci ay parties intimes et tout ça doit être un consentement bu éclairé te loolu boo xoolee luy jariñ luy jariñ euh, ki fait la mhm. mais li mu koy jariñ jariñ da cee war a joxe nangu teefam nak bu fekkee tey jii dañ koy def ci ko xamné ne lañ koy def neexu ko mhm. té nangou effectivement effectivement parce que tey mooy le consent le consentement enthousiaste. il est important parce que tey soo suñu euh, euh, la culture de consentement amu fait, contrairement à la culture du viol. la culture du consentement mooy naka la ñuy promouvoir le consentement. aujourd'hui tu da ngay gis ay affaires banal sax des fois dañu naan la jigéen parfois muy wax ba il faut insister il faut qu'il soit aidé déedéet ça, saa yi nga ko sax ñun <laughs> après quand tu penses quand tu étais jeune yenn ça nga koj ben xalé bu jigéen ci gogn bi ki mu bañ nga top ko insister insister ba mu ni la waaw nga foog ni da doon neex neex lu wala da doon jaay affaire alors que malgré elle mm. elle te dit oui parce qu'elle n'en a plus parce qu'elle en a marre parce qu'elle pense parfois que ni su le né waaw elle va se débarrasser de cela mm. alors que ce n'est pas le cas tu vois donc consentement à plusieurs niveaux yenn saa sax ay appréciation yo xamni ni boko waré def ci nit ki sax war nga taataan consentement est-ce que d'accord et comme tu le dis ce n'est pas n'importe quel consentement qui est consentement ben un consentement doit être enthousiaste nga xamni ki kii le mhm. waaw bëgg ak envie ak enthousiasme mais pas parce que xalaat na ni amna ay menaces ci ginnaaw suma ni wul waaw mhm. suba dinañ ma priver de ça suma ni wul waaw est-ce que du mer su ma niwul waaw dina ko frustrer suma ni niwul waaw dina ma bàyyi plusieurs choses yi nga xam ne malgré elle elle peut arriver à dire un uh-huh, nga foog ni d'accord alors que tel une possibilité de dire non. Et encore qu'un consentement n'est qu'un oui n'est qu'un oui que quand on a la possibilité de dire non. Mais quand on n'a pas la possibilité de dire non, si on dit oui, ah. celui-là, ça vaut pas un oui. Ça ne vaut pas un oui. Quand tu dis waouh, ce n'est véritablement pas waouh. Et aussi, dire aussi que mhm. parfois, euh, ni violé, en mm-hmm. tout cas, la violence sexuelle d'une manière générale, qui peut exercer, si nous exerçons souvent, nous sommes nous éloignés. Nous étudions, nous montrons, souvent, les proches nous le Les proches, ça veut dire qu'il y a une relation. Donc, avez une relation, vous savez, qu'on a une emprise du Khalebi, elle n'a vraiment pas le choix de dire non. Tu vois, donc, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit ce qu'elle dit, quel que soit comment elle se comporte, parfois, elle n'a pas la possibilité de dire non. ça c'est Et donc si elle n'a pas la possibilité de dire non, mhm. consentement à consentement du voilà consentement éclairé à comme ni nga parce que nous qui waxoon ko. am nga possibilité ni waouh am possibilité ni déedéet am possibilité ni waouh aussi t'es de ngay gis beneen mbir bu ñu a wax da ngay gis ni d'accord n'a par exemple pour ñu d'accord là par exemple pour ñu forme mais d'accord accord pour ñu dindi sama yére. ça c'est sûr sûr. y en a qui pensent que bon c'est bon comme par exemple beneen exemple bu gën il y a ça nga invité ay xale jeunes adolescents yi dañ koy def invité dem piscine party. wala dem yendu. Hmm. mais voilà a ñu dem yendu mani la waaw damay ñëw yendu. piscine la mani ni waaw piscine la xam ni maillot de bain laay sangoo waaw. mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec les lu fa mën surtout tu vois il y a nga gens ñu ah qui dañ ko parce que dañu sorti dem piscine park mm-hmm. lu ñuy wax nu mu nous lu mu dem ci sortie bi piscine bi lu mu dem def mais bi may xalaat wala bi may joxe sama accord activité ça va pas dire que je voulais que après le fait xew ça c'est sûr. et je pense que loolu itam war nañ ci mën a ak parents yi ci aussi ak société bi. pour ñu gën mais aussi conscientiser góor ñi. pour ñu ramener, c'est pas parce que cotiser n'a pas, si sortie bi rek am droit de def lu neex. lu neex c'est vrai. Hmm. loolu itam lu am solo la ndax tamit waaw yi day à des degrés différents. Hmm. T'as jii mën nga invité nit. Hmm. voilà mu jugee këram ñëw seet effectivement. ci coobareem ah. oui c'est un consentement bi muy ñëw boo xam ne c'était éclairé mhm. mais c'est pas parce que moom ñëw na rek que tout est permis yaa ngi dégg donc loolu tam euh, dafa doon euh, lu ñu war a bàyyi xel effectivement am na ñoo xam ne nag bu ñu boo leen fekk see ñoom dañuy nekk da si seen zone de confort effectivement de telle sorte que mën nañ jàpp ne tout est permis mhm. am na ñoo xam ne sax duñu laajte far mhm. waaye du fait que woo nañ la ñëw nga rek ñoom dañuy foog ne fi mu toll nii moom lu leen neex def kooku ñëw tamit bon amaana war euh, war naa fexe ba fu mu egg du fa egg waaye léeg mën nañ koo teg ay contraintes yoo xam ne mhm. mën nañu yegg ci moom wala ñu defloo ko loo xam ne am neexu ko kaar yi ñu ngi koy wax sànq tey jii am na ñoo xam ne boo nee déedéet te mhm. naan la bon euh, le de la femme, c'est un nom. Euh, le, nom de la femme, c'est un Ça veut dire un oui voilà, d'une autre façon. Voilà, bon bon, bon les non nous le bon, des ça savons. ça Donc, bon mais bébés de quoi. y donc l'eau, euh, lu am solo l'eau, parfois mom mu rek euh, comme que dañuy wax ci culture du viol après dinañ ci ñakul dinañ ci dugg. Mhm. mais luy luy luy lo xamné ne la vraiment euh, lu jar a bàyyi xel la. effectivement effectivement. Mhm. parce que góor gu nekk jigéen ñoo la góor daal góor rek la mhm. donc du coup li fekk ñoo ngi euh, am mentalité boobu. parfois sax duñu duñu lijjanti consentement keneen. effectivement vraiment c'est des choses yoo xam ne war nañ ko mais c'est des choses yo xamni tamit aussi buñu buñu buñu bu ci suñu émission yi ñu ci defoon ci les stéréotypes yoy dañ ci danga kii lan lañuy xaar ci ku góor ki góor rek la wara a doon c'est-à-dire éducation yi day ñëwaat man ko jigéen ki comment on m'a éduqué ba ma mëna am ay désir tok ci parce que dañ ñu yar ci muñ parce que si suñu delloo ci beneen émission bi fi def waxtaan ci moy mm-hmm. ku góor ki moom mën exprimer mëna def lu ko neex mais ku jigéen ki mën toujours ci inégalité yi ñu yaree la en fait donc comme noonu la monsieur Faye léegi nañu dem euh, seetaan ki nga xam ne ni tey moom la ñu àndal ci émission bi pour ñu waxtaanee naka la gisee ci culture du viol bu ñu waxee culture du culture du viol sama xel si lan lay njëkk a dem mooy que ni dafa nekk loo xam ni dafa mel ni dañ ko banaliser ci suñu société euh, maanaam dangay gis benn xale moo xam ndaw la wala mag la mais jigéen de façon générale mu wax que ni xëy na mës na dund euh, benn situation boo xam ne nit sàkku na ko wala def nañ ko jëf bu ñaaw souvent lan lañ koy njëkk a wax mooy lan nga fa doon def lan nga sekkoon ak moom lan nga soloon donc mu nekk ay question yoo xamante ne nii boo ko posé nit ki kooku ci boppam sax loolu dina ko choqué ba nga xam ne xëy na mën na dem ba xalaat ci biir xelam que ni problème bi si moom la jógee que xëy na moom moo am taxawaay bu rafetul ba nit ki yegg ci kawam wala nit ki def ko lu ñaaw loo xam ne bugg ko woon donc moo tax ma ni dafa dem ba dafa nekk loo xamante ne dafa mel ni dañ ko banaliser ci suñu société banaliser bi maanaam dañ ko tuutal joxuñu ko en fait solo boo xamante ne nii dina tax bu nit ne ah man de def nañ ma lii rek ah kii de lu mu wax nii graaw na nañu xol na lañ ko ciy dimbale pour essayer trouver solution man loolu ko d'accord pour dire que wut circonstances atténuantes ne lan la non le viol euh, l'habillement ne justifie pas le viol c'est-à-dire que tey jii nit ki dafa am loo xam ne daf ko am dafa juddu ànd ak bàkkan ñu ne ah kii de doomu aadama la doomu aadama gi mu doon nag dafa tax mu am ay àq ak yelleef te ak moom am na ci li nga xam ne loolu la ñu woowee intégrité physique maanaam moom moo ko moom bu fekkente ne bëggul nit wax ko ci wax bu ko naqari nit amul droit wax ko ko ci bu fekkente ne bëggul nit def ko ci jëf bu ñaaw nit waru ko ko ci def ku ñëw teg loxo ci kawam bu ne la déedéet teggil sa loxo danga war a teggi sa loxo même bu fekkente ne slip la sol mu toog ak yow même bu fekkee ne dafa sol yére boo xamante ne ni du yére bu gudd mu toog ak yow mais waruñu mën a di wax que ni non c'est parce que lii la sol moo tax ñu def ko loolu parce que kenn mérité wul ñuy yegg sa kaw wala di la sàkku ndax loolu jëf bu ñaaw boo xam ne mën na yàq dundu doomu aadama alors bëri na déjà si suñu askan rek comme ni ma ko njëkkee wax bi may tàmbali samay kaddu ñun dañu dem ba dañoo yegg ci euh, ba nekk ci benn situation boo xamante ne ni du ñuy bàyyi xel en fait nan la ñu banaliser maanaam ni nga xamante ne ni tuutalee nañ ko noonu da ngay gis xale bu ndaw xale boo xamante ne ni ay 2 ans la am trois ans nit am habitude ñëw jël ko fob ko foon si gémmiñ soi-disant bébé la nit ñëw e sama chéri sama kii di ko kot parfois nga gis situation boo xam ne xale bi du bëgg day ne bàyyi ma wala ki mais nit ki daf koy forcer gis nga yooyu noonu yëpp ay détails la yu ndaw yoo xam ne dañ koy négliger mais dafa nekk loo xamante ne ni c'est important que nit yi xel c'est de petits détails qu'on loo xam ne mun na exemple ay yu ndaw yoo xamante ne dañ leen di sàkk su ma nee xale yu ndaw tout tànk yi laa wax am na ay tout tànk xam nga tey mineur mooy ki nga xamante ne amagul fukki at ak juróom-ñett mais am ay tout tànk yoo xam ne xëy na moins de fukki at la ñu am ñooñ dañuy yegg seen kaw wala di leen sàkku boo xamante ne ni duñ ko mëna wax té généralement bu bi ne ah man de def na rek bi day donc au niveau sociétal dans nos cercles familial c'est quelque chose c'est un premier niveau c'est des choses yo xamni parce que xeyna xalé bi limuy ko solo bi par exemple accusation de viol am souvent nit ki nga dañ ko mu au niveau de la police peut-être pour porter plainte parfois dañuy confronté wu ci situation yoo xamante ne duñ leen en compte bu baax lan la ñu nekk di wax dañ la violé yow li ngay wax nii doy na waar de est-ce que dëgg la moo parfois dañuy né ñi nga dañu ci secteur de la justice bi ñom dañ leen a war former ci li nga xamné mom moy une personne boobu ne dafa dund viol bu ñëwee di porter plainte il question lañ ko wara a poser ak ban attitude la wara ak am ak mom nga ñëw aussi à un niveau beaucoup plus élevé nga xamné c'est du côté de la justice au niveau des tribunaux par exemple tay les lois sur la viol on dit que le viol a été criminalisé mais ba tay amna ay mesures d'accompagnement yo xamné ne war na mën am si képp ki nga xamante ne ni dund na viol nan lañ koy accompagner nan la ko état di aaree yan luwaa moom moo koy protéger ñoom la ñuy woowee victime ou survivante de viol mais da ngay dund non seulement viol boobu mu nekk lu métti ci yow nga nar a suivre procédure bu gudd pour que yoon mën wax ni ah mën a wut ay preuve ne effectivement li dund nga ko et que ki dund dani lañu wara tek sa kaw donc procédure boobu rek metti na metti boo xam ne di nga ci dégg lu la naxari bo ñëwé tribunal bu ñuy def procès bi xëy na nañ la laaj yow lan nga fa doon def lum la parce que avocat bi mi ngi chercher à défendre l'autre donc en cherchant à défendre l'autre yow mi ngi lay tégaat encore benen metti donc à tous ces niveaux là dafa nek lo xamantene ni dañuy dund cette banalisation du viol waaw amna na cas yoo ni parce que bu dee cas de mineur la lu ñuy wax mineur alalu procureur la parce que convention internationale des droits de l'enfant nee na xale mooy ki nga xam ne mi ngi juddu tey ba keroog muy am fukki at ak juróom-ñett donc kooku non, ci diggante boobu noonu giiru dund boobu bu amee dara lu ko dal man mi nga xam ne man maa yaayam wala ma bokk ci famille bu ma décidé wul porter plainte sax yoon day jëlal mbir mi boppam te bu yoon topé, li nga xamante ne ni Euh, procédure bi noonu la ko war a defee normalement enquête ba wut ay preuve ki nga xam ni moom moo ko sàkku normalement yoon bu toppee li nga xam ne loolu la wax ni ah boo yeggee ci kaw xale daan yi mooy tegu sa kaw. donc daan yooyu noonu day am donc côté boobu noonu aussi alhamdulilah parce que xale boobu noonu ñun par exemple au niveau de nos de notre centre on accompagne sur le plan juridique parce que am na ay structures yoo xam ne ñi ñuy liggéeyee ak comme ay AMO comme association des juristes sénégalaises boutique de droit et donc ñoom ñëpp c'est des euh, structures qu'on met à contribution nga xam ne dañ leen di jël ñoom tamit sur le plan juridique ñu jàppale ñu pour que loolu noonu mën a yegg yoon xale bi nga xam ne moom la ñu protéger ko et que ki nga xamante ne moom moo teg loolu noonu moom moo def loolu noonu yoon dal ci kawam ndëpp ndëppal bi sax pour man loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy banalisation boobu noonu parce que tey jii nii comme li ma wax rek sutura beeg masla bi nga xam ne ñu koy wax si si suñu biir kër yi dañ koy def di ko wax tout le temps day dem ba benn moment da ngay gis koo xam ne dafa nekk ci biir kër ñu sàkk ko fa famille bi yegg ko ne non euh, buñ bu bu génnee dafay tas famille bi il faut mais ki nga xamante ne tey ñëw na ba yegg sama kaw doom te ñu bokk deret moom bu dee seetu ci dara man waruma si mën a seet dara donc ndëpp ndëppal boobu noonu tey li ñu war a def pour man mooy sensibilisation bi xam nga lu ñuy wax sensibilisation du doy c'est vrai que depuis yàgg na ñun avant ñuy juddu am na ñoo xamante ne nekkoon nañ fi suñu ay yaay di liggéey si domaine bi di si xeex suñu ay rakk aussi ñi ngi ñëw du doy nag parce que tout le temps mi ngi xew ci famille mais pour man solution bi njëkk loola mooy jéego a teg dugg leen xamal ni leen viol dafa nekk loo xamante ne dafay yàq dund doomu aadama amul mën yàq dund doomu aadama dafay yàq dundu doomu aadama donc nëpp nëppal bi nañ ko bàyyi ki nga xamante ne nag fekk na xale bu ndaw ci kër xale bu juddoogul xale boo xamante ne ni xamagul mënagul ràññee moom ay àq ak yelleef mu yegg ci kawam nañu fexe ba daan yi nga xam ne yooyu la yoon teg ci kawam mu nekk lu ñuy appliqué parce que buñ ko deful non seulement yàq na dundu xale bi mais suba day am fitu recommencé waat defaat ko keneen donc nëpp nëppal bi pour mu arrêter il faut ñu sensibiliser wax ak nit ñi kase li nga xam ne moom mooy tabu yi parfois mhm. il arrive à ce que nga ni Warkha kaay la invité pour ñu def expo par exemple lundi lañ ko présenté mhm. la samedi mhm. tu m'invites chez toi je viens pour un exposé guddi da non mais on n'a pas le temps ok je sais qu'il est minuit passé il est 23 h il est minuit donc je viens chez toi pour l'exposition exposé bi ñu war def en tout cas pour suba Mais nous ci kër ga leneen xew mais ils loolu bu fa jamono bi an ni muy doxee a culture du viol bi day dem ba tax ba man mii sax dama naan façon suma ma ñibbee suñu kër ni dañu egg ci man qu'est-ce qu'on demande lan nga fay def lan nga fa doon def lañu may laaj dama doon def exposé ils vont me dire xam nga ni du heure bi heure jàng du heure bi mais xam naa ni heure bi du heure jàng mais monsieur Faye seex nañ lu nga xam ni ñu relation yi tolloon na fu nga xam ni su ne ma ñëwal sama kër deux heures du matin mm. war naa mën a ñëw këram tout en pensant que ni lu ma buggul du fa am mais mën nga dem ba foofu mu tendre le piège egg fi muy egg te yow tu peux rien dire parce que après boo fa jugee dem mm. scène de prison charge Si ah, fi ngay njëkk police après nga mais nous mm-hmm. nous ñu lay culture du viol bi da nga ça c'est sûr mm-hmm. ça c'est sûr culture du viol c'est à des niveaux différents mm-hmm. tey jii ki nga auteur l'agresseur mon d'a de responsabilité ndax mon peut-être banaliser acte bi le lu war la donc loolu lu am solo la li tax moom mu jàpp ne war na ko def. Mhm. aspe yi ñoo ngi koy signaler sànq. Mhm. nekk na foo xam ne jàpp na ne voilà tey jii amul luñ koy tere. Mhm. jàpp na ne tam kii même bu waxee déedéet déedéet de boobu mën naa am waaw moo nekk ci ginnaaw. mën na am tamit jàpp na ne moom ëpp na pouvoir yaa ngi ki nga xam ne moom la nekkal. mën naa am tamit menacé na ko. te yooyu yëpp.

mën nga fa dajeeg ñoo xam ne tamit préparé wuñ leen. Mhm. ndax euh, ñoom ñëpp ce sont des membres de la communauté. Mhm. te voilà normalement dans le cadre de leur formation. Mhm. war nañu xam nan la ñuy une personne victime de violence sexuelle. buñ ko xamul nag kër ga la ñuy wax moom bëri na yaa ko fekki lu tax nga dem fa heure bi ñoo ngi xool lan nga soloon waaw. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi basé wu si say si say jëfalin yu weesu. Mm-hmm. am na ñoo xam ne sax dañ naan xamoon nañ ni lii dina ko dal. Mm-hmm. loolu lépp dafa dafa yéeme dañ koy comme si dañ koy normaliser. bu leen koo xam ne par exemple toog na ñaari jour di guddee ñëw yu ne xamoon nañ ne dinañ yegg ci kawam wala mm-hmm. xamoon nañ ne lu demee nii dina ko dal. kon toujours mi ngi mel ni ñoo ngi protéger mm, l'auteur de culpabiliser la victime. effectivement bu ñëwee ci euh, autorité judiciaire police gendarmerie nous avons ndax Sénégal ñun nañ né buñ la violé da ngay ah, ba victimiser wu bu une personne la dit dafa ñëw taxaw nga koy laaj muy wax di la xool di répondre correctement dañ naan kii violé wu. dañ naan dafa wow bët. voilà day wow bët. Mhm. léeg-léeg ñu xool euh, morphologie maa ngi jégalu ci kàddu yi. Mhm. xool yenn partie ne ko yow mii sa ween yi wala sa nangam nga bëgg ne yow ak nii nga tool dañ laa violé ah xam nga loolu dafa doon lu doy waar. Mhm. te doguma la ba pare foofu dañu ne. parce que fi, xam nga si suñ société ni muy doxee dafa am ay victimes de viol parfait, ak ay victimes de viol yoo xam ce sont des victimes de viol imparfaites ah, c'est-à-dire bu fekkee ni te parce que parce que bu à la base sur cette éducation d'où l'importance de parler de ce sujet. xamuñu ni mm-hmm. même une travailleuse de sexe à la limite mën nañ ko violer effectivement mën na victime de viol parce que comme nous le ko dès le début mm-hmm. le viol ce n'est rien d'autre qu'un rapport de sexuel sans consentement nga xam nga a ci définition une femme âgée de temps en temps une femme mariée ou une femme divorcée une travailleuse de sexe une femme pieuse ou une femme qui reste chez elle ou une femme qui est Il xam nga spécifié un rapport avec n'importe qui et ce n'est pas que les femmes aujourd'hui quand on parle de viol on pense mm. pense aux femmes mais évidemment on sait qu'il y a des hommes aujourd'hui des petits garçons victimes de viol on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas majeur, mais ça pas, ce sont les angles moi Peut-être ça ne pas dire que ça n'existe pas. Ça, ça existe. xale yu góor ci bërëb yi ñu nekk ñu nek ay xalé comme ñu nek ay mag ñu ngi leen di violer tay te bëgguñu ko. donc kon fii ñu suñ contexte on parle des femmes. mais juste pour vous dire que qui mm. parfait mooy qui tok ci pooju yaayam comme on dit demul dikul et que ku yiw et que bañu ñu ci mom mm. mënul wax jooy na mënul sax loolu lañuy xaar ci ki mais il suffit que ñu gis tay ku jigen ko xamné doon génn mu ngi doon solo nu ko neex mu ngi doon defee nu ko neex bi ñu mu ñëwee parce que aussi mm-hmm. euh, traumatisme yooyu nit ñi ni ñu koy dundee dafa wute souvent aussi ci Sénégal da ngay dégg ñu ah mm. ku ñu violé ngay wax lii ku ñu violé ngay defee nii ku ñu violé ngay fecc ku ñu violé ngay ree mais yéen ñoo xam ni mm-hmm. dañ leen violé mais soo leen gisee

qu'est-ce qui justifie ce type de comportement-là mais war nous ne vivons pas de la même manière la preuve moi, mm-hmm. tay bu agresseur une fille, ku bougé nga bu agresseur ont tiré pour se ci kaw ñun ñii ñëpp dañuy am ay réactions différentes ah, di nga gis ko am tendance à se défendre gis ko am tendance à se nga gis ko xëm sax mais nga gis se ree parce que dafa dafa dafa tiit affaire ay tu vois mais nous ngay gisee ni sur un groupe de 10 femmes par exemple ñoom ñëpp mën subir la même chose muy un viol mais duñ ko manifester de la même manière et donc mm. quand on parle d'une société cas c'est là où aussi ça peut apparaître parce que toutes ces là a un seul but. C'est quoi mm-hmm. Protéger le coupable. Ça, c'est sûr. C'est protéger le coupable. Parce qu'on va essayer naturellement à se demander la mais jamais tu peux tu, tu vois rarement en tout cas Moussa Faye qu'on mm-hmm. parle d'un cas de viol et que nous tournons 4 mois qu'il Comment il est Très bien. Qu'est-ce qu'il fait quels sont ses antécédents Fumumangue, mangé, foumou yaro, non ce qu'on va te dire moi, toujours coup ko gueule 2017 soirée bi dem Facebook dem ci dem ci dem et même la presse mm-hmm. quelque part est complice parce que aujourd'hui quand on parle d'un cas de viol mm-hmm. on peut te montrer on ignore toute la toute la vie de la fille mais l'homme là tu vas même pas voir son nom complet donc on protège le mec mais la fille elle toute sa vie est en ligne en fait. Dans le but de, de dire est-ce que c'est plausible qu'elle soit violée ou pas parce qu'elle avait fait ça si elle avait dit ça sëyoon na ba tas amoon na du xale amna 40 ans amna li amna na la alors qu'aujourd'hui on doit savoir que jigéen ñi à n'importe quel âge dañ leen di violer mm-hmm. ñu sëy ba c'est pas mm-hmm. important mu nekk seen premier mais dans dans un cas de viol nan la elle était vierge je vous parle. lan la fay def monsieur Faye wala amon na doom wala lan la fay def ah, yooyu noonu ñoom dañ naan la amoon na doom pourtant yow tu te demandes mais attends ok à mon c'est c'est une tas. mais mais c'est quoi le lien. C'est quoi le lien Voilà, voilà mon vierge à donc l'autre tamit du dindi société nous sommes dans le domaine, domaine nous dafa des. Mm. Mm-hmm. Euh, comme nous niveau eh? voilà donc. Euh,

T'es dit, incohérence comme nous nous tous des c'est ben ben copain. Nous avons un travail de groupe. Nous avons beaucoup de place pour un camarade de classe. Bon, mais puis mon fait juger. Ah, si la me force, dès que malheureusement beaucoup me mm. connaît. Il y a beaucoup expliquer leur langue. Ah yow yaa jóge sa kër dem ba këram donc fi ngay relater fay ñoo ngi lay ñoo ngi lay bloqué. ñoo lay bloqué fi ngay ñëwee tamit l' agent de santé nekk ak yow ndax foofu boo fa demee y' un autre récit. effectivement ndax y' a ce qu'on appelle euh, l' entretien psychologique. effectivement et l' examen clinique. Mm-hmm. avant l' examen clinique da ngay wax ak la victime. Mm-hmm. mën na ñëw ànd ak ay parents. Mm-hmm. parfois la victime mën na nekk benn mineur. nga xam ne wala koo xam ne.

kiy du bëgg a wax lépp ndax bañ na ko jugé. effectivement ndax nit ñi tam ñoo am retenue. Mhm. Euh, être très professionnel. Mhm. Euh, avec une victime koo xam subir na lii pour xam vraiment. en tout cas nan lañu war a comporter wu ak mhm. pour bañ ko gën effectivement effectivement je vois que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. et je pense qu'il faut vraiment nous remettre en cause ñun ñëpp. scène de prise en charge du début à la fin. et aujourd'hui même nous, on en parle aujourd'hui, on ne fait pas trop focus même sur le coupable, mais parce que même dans l'espace public de notre société, le coupable n'est pas présent. Quand on traite des questions relatives au viol, mm. on ne pense pas au coupable. Les hommes, ils sont. C'est comme quand on parle aujourd'hui de l'avortement médicalisé, on, ne voit pas de mec en fait. C'est espace on pense que en fait. donc ça c'est comme une ko fi c'est parce qu'on est dans une société patriarcale quand on parle de cette inégalité là ça fait sens et ça ça, renvoie à toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, quand on parle de viol, souvent, on jigéen du doigt alors que ku góor une part de responsabilité bu parce que moi, moo commettre la chose tu vois vous faites ku jigéen d'accord si si si ah, si on on on va pas parler de viol tu vois et donc je pense que tout ça ce sont des choses vraiment à revoir mm-hmm. pour pouvoir équilibrer les choses mais également pour pouvoir faire justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui subissent ces violences-là, mais qui ne parlent pas. Parce que tout est défavorable à leur niveau. Parce que nous demandons, parce que nous parce que parce qu'il y a tellement de choses qui nous ci opinion bi ci lolou lay l'opinion opinion bi ci lolou lay aujourd'hui de plus en plus on parle mm. de viol collectif ay serigne dara yu seug ci ay plus d'une trentaine d'enfants yoy nonou ah ok on en parle une journée deux jours après plus personne ne s'intéresse sur ce qu'est devenu le, le, le gars qu'est-ce qu'on fait et là on vous parle d'un serigne de qui qui bu egg mm. plus d'une trentaine d'enfants du photo même dans la façon de traiter l'information toujours on protège le gars alors que si c'était une femme. photo extrait de naissance tu vois et ça ça c'est de l'injustice en fait. ça c'est vrai que y a après on va se dire ok présomption d'innocence. <laughs> mais présomption de coupable aussi devrait y avoir. présomption d'innocence ok jusqu'à preuve mais aussi présomption de coupable quand on parle de viol. dis moi me violer violé mm. auprès de la victime ou de la survivante. dire on croit en toi on croit tes propos jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on sait tout, et tout ce que dit, eh c'est la justice au final qui va définir s'il y a viol ou pas. Mais ça, on ne l'a pas d'une manière équitable. Souvent, on a une société injuste qui favorise et qui protège souvent les bourreaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cas de viol, la culture du viol, c'est un réflexe le plus naturel.

ku ñu violé rek dalaa neex. xam nga lolu dang koy deg non mais man deg fii. Euh, mi mm, doguma la. mais que euh, Miss Sénégal daawaati géej heure bi un an. lan lañ fi waxoon. ku fi de ku fi violé yow la neex. te lolu malgré lepp lu fi xewoon ci campagne ci lepp téréwul amul sanction yu ñu mëna a jàpp ni teg nañ ko ci ñi wax propos yooyu. te téréwul ni ñu ngi wëy di organiser loolu rek. donc loolu ça montre que aujourd'hui même si le viol reste un crime. ça semble être banalisé. c'est banalisé noonu mhm. la demee nag ndax ñu bëri bëri na kooku peut-être dafa feeñ mais ñu bëri bëri loolu lañ jàpp. effectivement ndax saa su ne rek euh, ñi ngi interroger wu ci ki ñu ki ñu violé. tey jii boo ñi ñu bëri tey jii ñi nga xam dañuy def benn travail par exemple boo newoon ay xale def leen ma wala sax ay mag. Mhm. un petit exposé sur le viol. ñu définir la le viol. Mhm. dañ lay citer ay causes. oui. citer la ay conséquences. Mhm. ay causes bon lu ma nar a dit la ndax tey jii li ñuy cité li promouvoir viol li ñuy comme cause loolu mooy sax euh, ce qu'on appelle la culture. évidemment évidemment mooy ki lay wax habillement. Mhm. ki lay wax heure de sortie. Uh-huh. ki lay wax euh, son euh, sa morphologie. Mhm. sa façon de vivre. Mhm. sa liberté bi mu am. est-ce que vous voyez kooku loolu alors que dañu ne la véritable.

après tout c'est ça. foofu amul consentement. mais foofu c'est pas parce que dafa mandiqué ku ko romb sañ ngaa yegg ci kawam. c'est ça. déficience mentale bi nga xam dafa nekk ci mbedd bi ñi di ko woowee dof na ma yàlla jégal ci cadre gi ñiy jàppee ko ku doyadi. Mhm. c'est pas parce que xelam matul que ku romb rek war ngaa mën a euh, yegg ci kawam. te pourtant ñoom ngay gis ñu ëmbal leen fii duñu xam ni ñuy def xale yi. mais c'est un viol. c'est un viol évidemment. qui am handicap aussi sur le plan physique peut-être wala ben vulnérabilité boo xam ne tax na mënul jug. waaw pas parce que moom ci situation boobu euh, ba ñu mën a yegg ci kawam. pour mu leer tey jii même une fille boo xam ne euh, tey jii solul dara. Mm-hmm. C'est pas parce que moom ci situation boobu rek que yow dañ naa la war naa am sañ-sañu yegg ci kawam donc mooy lu ñuy wax rek. y a rien qui pourrait justifier le fait de s'accoupler avec une personne Évidemment. sans son consentement. surtout s'il y a contrainte, mm-hmm. menace euh, violence voilà voilà voilà voilà l'une wax tout euh, fait surprise. non mais tout à fait d'accord mais li nga wax mm-hmm. parce que les beau évidemment lu mu lu mu def da là ni la ay violer. man dégg à fenn ah parce que la tax mon am violer mon la mais bu la yu ndaw yi ndaw yi nga xam dañuy ñuy ni ay nit ñoo xam ay ibaadu lañ seen kanam yi sax doo leen gis teewul dañuy nekk victime de viol hein. tu vois bu doon loolu di nga gis ko xamni ne nee nañ mosul génn këram fu ko yaayam yónni lay dem fu ko yaayam wax togal la tok. teewul dañu teub seen miru kër ñoo fekk fa violé ko donc tant qu'on n'arrête pas comme tu l'as dit mm-hmm. de voir la source du mal chez la victime on ne règle pas le problème le problème se situe c'est le violeur le seul, la seule cause comme du viol c'est le violeur c'est ce gars là qu'on doit interroger qu'on doit voir et après qu'on ne me sort pas toujours mm. ouais il est malade patati patata <laughs> il est malade il est malade mais il ne l'est pas pour la plupart du temps il n'est pas malade c'est un gars qui a décidé de commettre un crime et je pense que il doit être entendu il doit être traduit en justice il dal viole, qui viole lay mais s'il le faut qu'on y va là-bas pas moi parce qu'en fait. parce que xam viol dafa c'est un truc bon à sous la mm-hmm. c'est pour toute ta vie en fait la victime la survivante quoi que l'on puisse apporter comme solution mm-hmm. comme punition c'est une chose qui va qui va déterminer toute ta vie en fait donc ce n'est pas une blague en fait donc pour moi c'est une chose très sérieuse et que nini bon il a ok que l'État continue à faire valoir la justice Dieu. Euh, système juridique puis pour que nous puissions faire valoir la justice à temps mais aussi que la société s'y mette pour que nous déconstruire cette culture du viol pour qu'enfin nous ñuy mun yeux dans les vieux, ces femmes là qui se disent être victimes accompagner les jusqu'à ce que déterminent si c'est un viol ou pas et que dire aussi que amener des fausses accusations mais c'est très rare et que les études ont montré que vraiment à la limite 2 moins cent cas de d'accusation yi nga xam fondé mais une femme qui te dit qu'elle a été victime de viol pour la plupart du temps ça a été le cas parce que ce n'est pas une blague c'est dire que je suis une victime de viol ça, tout le monde ne peut pas le dire tout le monde ne peut pas le faire parce que li en tout cas ci au-delà de l'acte a été une stigmatisation ah kii ka la mooy diw ki ñu violé woon ah kii yaayam moom lañ violé woon de ah qui doomu diw la dañ ko violé woon de ah la la la la toute une génération de génération de génération si réew mii ñu nekk daf lay suivre donc ce qui fait qu'aujourd'hui même les femmes n'en ne, parlent pas. Ah Et donc, s'il y a une qui a le courage de le dire, mhm. il faut l'accompagner jusqu'à prouver si c'était le cas ou pas. Mais pas se limiter sur alors, selon l'offre de moi, mhm. mhm. mais on n'est que des hommes en fait. Les hommes sont aussi capables des choses les plus mauvaises que les choses les plus bonnes parce que nous ne sommes pas parfaits. Tu vois Vraiment, entourage proche bi lay commencé. Mhm. ndax ñom tay jii bu déjà dañuy duñ ko gëm. ñi ngi commencé di questionner wu ci victime bi. Mhm. mais après tam acte yi nga xamné mo ciy mhm. le plus souvent day doon lo xamné des du duggaat ci culture du viol. lan par exemple le fameux sutura. waaw cela nee nañ waa la ki lañ ko jil ñu né ah nañ ko suturaal y deg buñ ko ñu ne ah mbir mi bu jëm bu jëm en famille donc ci loolu dox ñu ñu ñu ñu mëpp mëppalu sax bi ci gëna a moy viol suivi de grossesse imaginer am na ñoo Ils ne wax nañ leen ko ko may fofu la do jëm de viol évidemment ndax tamit du ay wax kessé mais parfois ce sont des pratiques yo day non seulement euh, bim mu commencé nenañ nañ ko nañ ko mëppal bu ci kenn wax mm-hmm. waye tay ji weesu na foofu am kuñ ko jiiñoon ñu né nañ len mayé xam nga loolu tamit c'est une chaîne de conséquences bo xamné mom moom day day da fay law oui voilà parce que xam nga si nañ ko ko may bobu mm-hmm. je pense si si li muy mm-hmm. deux choses yu ñu mëna lim la nañ ko ko may déjà parce que egg nañ ci moom parce que suñu société ak si nous, ñuy xalaat dañu jàpp ni jigéen moom bu amul ndaw rek amatul valeur c'est ce qu'on va dire qu'est-ce qu'elle là Elle a ah, a at la am ah donc amatul valeur alors que le mec là on on s'intéresse pas sur ce qu'il fait de sa vie donc on ko ko parce qu'elle a été victime de viol donc on sous-tend que ni kenn dootu ko bëgg amatul benn valeur mais nañ ko ko may pour ne pas affaire mais imagine un gars qui t'a violé kooku nga nga ni da pour le restant de ta vie da ngay en di dund ak faire. mais imagine un gars qui t'a on t'a violé c'est un gars c'est un viol collectif bref nga jëlee ci ëmb mhm. une grossesse qui va te renvoyer ou qui va te rappeler tout ce que tu as à vivre après nga ni sax amoo sax possibilité pour dindi grossesse boobu soo mais on est dans quel monde c'est vrai c'est un jugement yooyu nag moom ak acte yooyu moo tax ñu bëree bëri nañ victime te waxuñu duñu wax fu ñu tentative de viol nous ko subir mën doon bëri nañ évidemment mais euh, amuñu fuñ ko waxee mhm. wala ñemewuñ ko wax ngir bañ yu demee nii am ñu dëkkal leen fenn wala ñu doxalé noo xamné euh dina dina metti ci ñom lool ndax conséquences yi dugguñu ci mais y a des conséquences sur le plan physique. waaw ndax viol day ànd ak le plus souvent des violences physiques. évidemment motax prise en charge bi nekul da ngay ñëw rek focaliser sur les parties intimes. Mm-hmm. la personne bi nga violé nañ ko mën naa malmené nañ ko brutaliser nañ ko mën naa am na yeneen blessure yeneen dommage corporel yoo xam ne am na ko. Mm-hmm. Euh, conséquence conséquences sur le plan psychologique. ça laisse des secrets évidemment sur plan là tu auras une phobie envers les hommes. prise en charge euh, si une fille euh, est violée ou se dit être violée que la prise en charge puisse être gérée par une personne de même sexe. Mm-hmm. c'est-à-dire vous devez hôpital li ñi bëgg mooy mu daje ku jigéen koo xam ne mm-hmm bu mun dajé daje góor waaye fekk moom lam jàpp ci góor ñi ah, mhm, mhm. ak liko ko def taxna na bëggatul a jàkkaarloo kenn donte kooku dakoy fecc mhm. donc xam nga euh, lool moy woné né c'est ce sont des choses à prendre en compte évidemment et puis les conséquences sont énormes IST mën na découler ci loolu grossesse non désirée avortement clandestin bon cas de suicide tentative de suicide ou bien c'est une chaîne de conséquences bo xamné vraiment évidemment évidemment évidemment non lu wara xolal la Ahmed ni ma évidemment on a débordé mais c'est le sujet en fait quand ah, on parle de culture du viol mu nek une chose bo xamné faut tourner gis et que le viol comme ni mo la c'est pas une blague c'est pas une chose pour xamné <laughs> ça fait plaisir donc c'est vraiment un crime et pour moi, comme tout crime dañu wara a jël mm. euh, ba ca war dal di koy et puis nous disons au sérieux les victimes ou les femmes qui se disent être victimes de viol Si vous avez ñuy culture de viol si mm. aspect yëpp je pense que nous avons mm. plus de 3-4 nous avons des culture du viol le domaine médical avons def culture du viol sur le plan juridique nous avons des déglu culture du viol surtout sur la manière dont les médias traitent les sujets les gens qui disent et eh, c'est fait violer on ne se fait pas violer en fait on est violé euh, tu vois des mots des trucs

ñu gën a médiatiser euh, maanaam li ñuy tuddee culture du viol ba mm-hmm. pare tamit expliquer nit ñi lan la mm-hmm. ndax euh, bëri na ay jéeyo lu muy indi te ki koy subir mooy ki nga xam ne moom la daal tey jii média yi yaa ngi koy tudd sànq am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee ne am na ku ñu violé rek ñoom ñooy di ko joxe information bi ci ci ci ñenn ñi ni ñu ko buggee te te te tey jii euh, dafa am benn procédure boo xam ne moom la ñuy suivre mm-hmm.

mbir mi ni mu demee carrément waaye du loo xam ne ku ne sañ nga cee wax mm-hmm. wax ci nu la neexee mm-hmm. ndax tamit li muy bàyyi ci kim dal mm-hmm. mon rek xam. traîner tout au long de sa vie. effectivement vraiment donc donc et que comme nous le seul mm-hmm. la seule cause de viol c'est le viol il y a rien qui peut justifier un viol. et que en aucun cas une victime de viol ne peut être coupable de son viol. quel que soit ce qu'elle avait porté quel que soit là où ça s'est passé quel que soit ce qu'elle avait dit. et qu'un consentement doit être éclairé et enthousiaste. un oui n'est un oui que quand on a la possibilité de dire non. Mais si on est dans une situation où on ne peut pas dire non, ça dire oui ah. ne peut pas être mhm. oui. Et aussi, seul un oui est un oui. On ne peut pas nous dire que qui ne dit rien est d'accord. C'est pas toujours vrai. Donc, il ñu vraiment encore une fois au sérieux ni wax c'est pas une blague je le dis encore et que c'est une chose qui fait très mal et que Yon dafa war di di def choses, ci condition wu ñuy gëm jigen ni mm-hmm. ñu leen di gëm ñuy sañ nga def neex te choses, egg ci sa kaw ça je voulais le dire tu peux faire des nen son ko fait te choses, <laughs> mënul egg ci sa kaw lan ku ñu ñi mëna def ay torse fait mëna def neex te ku mais loolu itam moo waxoon nañ ko c'est les stéréotypes boo leen egg delloo si suñu émission bi ñu tuddee woon les stéréotypes yi nga xam ne nii mooy ni ñu yaree ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi di ngeen fa gis ay réponse mm-hmm. kon ku góor ki nu mu amee droit def lu ko neex si côté solo su ko neexee mu def body su ko neexee mu def yu sexy te kenn ku jigéen du egg ci moom noonu la ko jigéen ki mën a solee lu ko neex te kenn du egg ci moom donc bu dee day leen feebar si ñu ko sañu wax ñu dem faju ji bu dee nag dañu am yenen yu ñu nekk seen xel ñu xamni luñ fi defit yoon mën na dal seen kaw et donc c'était tout pour moi en tout cas di leen jox rendez-vous ci benen émission muy euh, voilà l'autre côté du canapé di wax ci focus sur la droit santé sexuelle <laughs> mënuma wax formule boobu <laughs> Moussa Faye moo ko woon moom laa koy bàyyee en tout cas c'était un plaisir et je vous donne rendez-vous très prochainement ok merci beaucoup mm-hmm. merci beaucoup